nee naa yéen ñi sant Sall kenn waru leen jiitu ci xeex bi ndax yéen a war a defar seen der ndax li fi ne defe naa mosuñoo am lu yées lii ci Sénégal ci gouvernance du ma wax lu sori nag ci Thierno ndax yàgg ñoo xamante bi mu génnee ci gouvernement bi lañu ñu doog toog waxtaan waaye li premier ministre Abdoul Mbaye wax saax Je dans la presse ni gëw que liñ ma Alassane 31 décembre de l'année passée, année débat war après discours voilà quelque chose comme ça Nous ñu waroon représenter ñun parti débat 2 Alassane gouvernement boo demee bul tiire ndax c'est un futur allié ndax ñi bokk jikko ñi bokk jikko bokk gëm-gëm dañuy lu mu yag yàgg dinañu dajé kon kuy woté valeur ci réew mi xamal ni sumbu nga lu rëy rëy ndax réew mi valeur amatu fi té njumte bu rëy la buñ ko yemalee ci politiciens yi valeur yi crise des valeurs fep la am ci société bi fépp la am ci société te ku jóg di xeex ngir valeur yow la gens qui ont xeex je dis souvent que sénégalais yi sont très tolérants avec ngeen ma ci terme yi les corrompus et les voleurs mais très très exigeants avec les hommes de valeur duñ la tolérer dara nga am en face de toi un système bon xam ne suba ba ngoon jot nu ñuy les nit ñi

président Idriss Seck da koy faral di wax ndax lu ne di ko deg te Sénégal tuumal nit yomb na waaye na nga xam nit fa ngay amé adversaire moy fi nga wul ndax système bi ni mu bindoo ñi ci bénéficier wu dañoo nekk ci segment société bi yépp muy ay homme de presse muy ay homme d'affaires muy ay technocrate muy ay homme politique muy même des des chefs religieux muy ñooñu ñëpp nag kenn amu ci intérêt à ce que le système change moo tax les hommes de valeur dañu war a daje xam ni xeex bi du yomb foofu lay daaneel rek mooy yàqkat yi ne ci réew mi ils sont prêts ils sont capables de faire toutes sortes de concessions pour daje ci li ñu gëm ñoom mooy nu ñuy def ba continuer di séddoo réew mi